yaakaar lañu am ci ñoom ñoom it amuñu lu dul ñi nga xam ni ñoom la ñuy ñaan parce que fii ku jàq wala ku jaaxle dem ci kilifa diine yi mais bu dee dañuy jàq di dem ci kilifa diine yi du ñu gis résultat après bu boobaa non seulement ñu ngi nasaxal lu am solo ci réew mi parce que loolu nag dafa am solo parce que defe naa ni toll nañ fi benn période boo xam ni sëñ Muntaxa am na ñaan yoo xam ni ñaanoon na ko te ba mu ko ñaanee indi na dal ci réew mi ëllëg si biir bu fekkente ni bi ñeneen ñi ñu ngi ñaan tamit euh, loolu dafa war a feeñ mais gis ngeen ni bërki dee mboo njaay problème Walf amoon na ko fi waaye Walf jóg nañ dem ci sëñ Muntaxa ba boobu ne yëgu ko woon waaye incha allah danañ ci taxaw finalement gis nga def nañ li ñuy def pendant un mois bi nga xam ni moom lañ sanctionné woon ñu sanctionné ko télé bi loolu nekk loo xamante ni bi dafa mel ni dañu ne mayewuñu te pourtant waroon nañu mën a maye li am solo daal mooy nañ xam ni dëkk bi euh, ñaan kii ñaan nga may ko dafa am solo trop trop trop te dafa am lu bari loo xamante ni bi da koy defar donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm